rijaal rijaal yëg-yëg bee foor ba mënuma ko dékku barke sëriñ Bamba sonn naa sama xol baa ngi wéqu permets-moi de déclamer l'hymne à l'amour mouride dosé d'un peu romance mon verbe est hybride Baye Fall sama kanam gis nga ma doo ci gis lu dul yaay fal boo këf xolam saf sa jëmu ci xelam ba anam bi ngay durusee xasida yi dàqal ko xalam te hyper avec beaucoup de classe dans ton jaxas ton regard active le fibre du mbégte dal muntaxa charmé et attiré par le lamphal de ton cœur au final saisi sur le pied de tes makarimal axla xol bi dafa ëpp ni ma la ciy daje lépp lu yàlla bind ci lu baax ci yow la daje dëkkii naa la jëneer ba per yaay sama café Touba boo fi manqué damay gis tëb loola waral ma la gisee su ma meree ree ji tëb kennal la sama xol ni ngay kennalee sëriñ Touba tey lay màggal li sama làmmiñ doon wax Touba daanu naa leeru mbëggeel te duma géef ci di la bëgg mbëggeel gu may gën a bëgg loo say bëgg-bëgg ma plume qui s'incline face à la grandeur de son âme Mbacké foo ñu woo ñu wuy si donte sax dañuy ràmm l'altruisme dont tu fais preuve est celui qu'on réclame sa tabee ñu xettali bi ñu jafe-jafe yi xañee jàmm il répond présent toujours et pas souvent jullit ci duñu woote wallu ba almuntaxaa tànqamlu oui il est omniprésent quand l'humanité yi éprouvant xéewal bu ñu borom bi maas jagleel la nañ maase ne alhamdulillah Let's noise, guys, let's noise. Then let me raise my voice and slam for a choice. Al Muntaha, your generosity is so remarkable, and our love for you won't be regrettable. il est la parfaite incarnation de Cheikhul Khadim ci nekkin jëfin Mbàkke sa xol mënul ci lim wa jëxtu lil muntaxaa fi ndakaaru Bamba di su ma nekkee al muntaxaa dinaa dellu si ndakaaru de par son image nous revient-il en 2019 Masalikul Jinaan doonati firndeel ci li nga gën taaru la ciy jëf le mouride il est notre repère quand on se ba Ibn Bachir yéegi la Iblis mer yoonam fer korona arriva mais l'islam Touba di julli xasaayid yiy jolli damu tànk Iblis muy raaw salaamaaleykum waay tàccu leen waay waay tàccu leen bébé fa waaye dama bëgg ngeen dem YouTube waaye léegi ngeen dem ci bébé Fass Lam yéen ñëpp ngeen abonné ci YouTube bi waaye tàccu leen ki waay ki wax na wax naag wolof bi wax naag tubaab bi wax naag anglais bi waaye tàccuwaat leen ko bu baax a baax waaye. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu